a été une source de motivation et de fierté de servir l'idéal Yewwi et tous les candidats de Yewwi. C'est la raison pour laquelle des hommes comme Barthélemy et tous ceux qui sont derrière nous méritent d'être félicités parce qu'ils ont compris les enjeux et ils ont pris la place de tout le monde. loolu rek la gars yi sóorul woon xamuñu woon ni Yewwi dara mën a koo fay xel lañ leen tontoo tontoo leen xol. dañ leen wax ne ñun ñoo leen ëpp xel ñoo leen gën a muus soo amee doolee wala ngay jëriñoo doole jàmbur doo réfléchir lu bari looloo leen dal su ñu yëgoon tey je suis sûr que si c'était à recommencer il n'invaliderait jamais notre liste parce que li ñu sénégalais yi wan ren ci taxaw ci adhésion ci contenté ci mbégte ci engagement mënuñu leen ko fay yàlla na leen ko yàlla fay au nom de l'intercoalition ñoo ngi gërëm askanu Sénégal ci loolu nga xam ni defal nañ ko wallu ak Yewwi ci adhéré ci fi ñu leen woo ci adhéré ci taxawal démocratie boobu mooy première leçon bi deuxième leçon bi mooy ni campagne bi ak camp élection yi demee gis ngeen na mu demee rafet na lool les, la campagne de Walou, que ce soit la campagne de Yehui, ce fut une adhésion populaire sans faille. Avec peu de moyens, nag fayuñu kenn dara joxuñu kenn dara c'était massif c'était populaire c'était animé mbégte rek nga ci jële ñetteel bi mooy dañu amoon projet demuñu ci élection yi naan nit ñi voté leen ñu ngir lii ngir lii dañ ni un autre Sénégal est possible nous invitons tous les Sénégalais à venir le construire ensemble on était dans une œuvre une entreprise de co-construction d'un nouveau pays d'une nouvelle nation de nouvel État et d'un nouveau projet économique et social qui promeut le Sénégalais et uniquement le Sénégalais entièrement le Sénégalais looloo ñu wuutee gaañi dañu xam fi jëm xam li ñu bëgg xam nañ fay demee ak kuñ fay demee ak lañ fay demee loolu moo ñu wuute moo tax dans cette campagne nu étions à l'aise xam nañ fiñ jëm xam na nañ lañ fay demee ak kan lañ fay demee ak lu tax ñu dem fa dama bëgg rapidement rek brosser loolu pour situer li taxoon ñu demee ni ñu demee doxale nañu doxe Aujourd'hui, nous avons autour de cette table Lamine Thiam, qui est le mandataire de la liste Yewalou, et Détier, qui est mandataire de la liste Yewi. Ils vont vous présenter les différents euh, résultats. Nous avons daañ leen wax li ñu am ñun te xam ko te mu wéeru ci chiffre li tax ñu ne gañe nañu ci kàttanu yàlla ak adhésion wu sénégalais yi daañ leen wax aussi nan la tëddee daañ leen wax aussi fan la jëme après am na ñu fi toog autour de cette table et derrière moi qui pourront compléter en tant que de besoin donc damay jox parole bi Déthié mu exposé lépp su paree Lamine Thiam wax après ñi ci yokk yokk ci en français